salaamaaleykum waa Diouf Académie ñu dellu si waa sama gars yi waa tey nag dañoo bëgg a ñëwaat euh, encore si Facebook pour wane leen benn affaire boo xam ne am na njariñ torop yee man nag balaa boobu dama leen bëgg a conseiller affaire mooy comme ça Facebook boo ko ibbi na ko ibbi ak sa compte Gmail moo gën compte comme ça nga ibbi ak sa numéro téléphone bu fekkee ne xas nga ba ibbi da nga ko nëbb bu fekkee nëbboo ko am na ñoo xam ne bu bu nekku sa ami sax mën nañoo am sa numéro facilement na loolu baaxul moo tax mën nañ la woo ne la si Facebook laa ko jëlee nga naan Facebook noonu si mën a jëlee numéro te bien sûr mën na nekk kay ok comme ça ñu bañ a perdre temps bi rek ñu dem taf taf ok sama gars yi kon dana ñëw ñu cliquer ci application bi Facebook ok alors soo duggee ci Facebook. comme ça ma wan leen li ma doon wax par exemple ñu bind Abdou Diagne sama benn gaañ la mooy nii comme mi ngi fi jërul bindaat loolu moteur recherche bi après nga ñëw bind ki ngay seet léegi Abdou Diagne par exemple dañu xool ba xam moom kase na numéro wala boog comme nëbb na numéro wala boog ok dañu ne à fii ngay clique ñu bëgg bu ñu bëggee jël numéro ab jaañ ci facebook bi ok ñu wàcc ñu wàcc gis nga ba fii ñu bind coordonnées gis nga nga gis ni gis nga numéro Abdou moo ngi noonu moo ngi nii alors pour casser numéro bi da ngay def ñu def retour alors comme ñun mënoon nañu jël numéro Abdou Diaye mais pour casser ko pour nëbb ko ba yow rek yaa koy mën a gis da da nga ñëw si sa Facebook fii ngay cliquer fii après mu ñëw mu indi la interface bi nga cliquer sa profil après mu indi la sa Facebook nga ñëw fii yow tamit nga wàcc wàcc mhm. ah, dafa mel dama ko romb ok mi ngi nii à loolu la encore à propos yow tamit moom ngay dugg pour casser sa numéro ok yow tamit da ñu kilik à propos ok léegi fii man nga fi def affaire yu bëree bëree bëri foo nekk affaire yooyu noonu du nëbbu numéro rek kese lañ fii def mais tey moo ñu tax a jóg ok léegi gis nga fii tamit mu ngi ni ñu bind coordonnées léegi sama numéro téléphone moo nekk nii léegi pour nga nëbb ko da ngay def fii ngay cliquer modifier nga cliquer modifier après soo cliquer ci modifier bi xam ne connexion bi dafa xaw a yéex ok gis nga numéro baa ngi nii léegi fii ngay clique fii nii xomb bi nekk nii wala kànnaar moom fii gis nga et puis mu nga xam ne moo fi nekk am na carte am na public am na ami am na mois unique am na plus d'option bu la neex nga def plus d'option nga xool fii fu la neex nga xam ne bu la neexee raison bi nga nekk kese ñoo koy gis affaire yooyu noonu waaye man damay def euh, comme man dama choisir mois uniquement la si neex def ko gis man dama def ça dama def euh, mois uniquement mois uniquement après nga def euh, nga ñëw fii nga bës fii nii enregistré sinon du enregistré nga bës enregistré lii boo ko defee incha allah nii boo xasee ba def yow rek yaay gis sa euh, gis sa numéro téléphone beneen bi mooy bu fekkee da bëgg a sa comme ça da dem ba si yàgg sa sa Facebook nga bëgg a changer tur bi quoi jëlul tijji beneen compte jëlul créer beneen compte léegi dañuy ñëw fii en même temps ñu wàcc ñu wàcc ok ñëw fii paramètre du compte paramètre du compte après nga clique paramètre du compte nga ñëw fii ñu bind général ok ok fii la nekk fi boo fi ñëwee nag nga nga def attention parce que fii dalay wax fekk amul deux mois maanaam soixante jours fekk amul boo ko sensé mënoo ko sensé waat comme man ñëpp lay bindal lii mais bu fekkee yow bi nga tijjee Facebook bi ak fi nga ko bëgg a man mën na ko danga koy fii ngay dindi yëpp ngay dindi nga def loo neex sa tur fii sant fii fi nga def si sa loola neex ko sa xam léegi nga boo paree nga def yi après si saa su ma gis man gis nga bu defee bu defee indiqué un il faut nga bind affaire bi ba pare changé ko man changé wu ma ko looloo tax mu bind loolu après nga def enregistré def dina la laa sa kotu sa kotu bi pour xam nga pour sécurité après nga def ko après nga confirmer ko de saa si day daal dem comme a am affaire ba sans aucun problème ok sama gars yi ok sama gars yi loolu moo nekkoon kii bi ba beneen yoon bu fekkee vidéo bi amal na la solo nga partage ko nga abonné ci chaîne bi ci chaîne bi comme ça doo perte yeneen vidéo yi xam nga nga partage ko nga jàmm ak yoon merci ba beneen yoon